Phoenix Vision Music. Phoenix Vision Music. tey ñëwaat nañ seen xarit seen doomu ndey baax comme niñ koy defee saa su ne tey géejawaay la ñu ñëw géejawaay la ñuy defee suñ micro territoire mais nag avant tout yow miy seetaan li ma lay njëkk a wax mooy likeel aboneel mais surtout partagé ko gars yi bu leen fàttee abonnement bi ah dee leen parce que mooy tax vidéo yi ngeen koy teela jot ngeen bokk ci ñi ñu koy njëkk a jot tey suñu thème mu tey c'est simple. bëggoon xam ba xam mës nañu laa trahir wala yow mës ngaa trahir. Euh, non non man moom mësuma maa waaye man tamit mësuma trahir sax waaye def naa comme genre boobu comme genre boobu waaw waaye. xam naa demee. Euh, damaa bëggoon xëy na question boobu sax fiiraange moo taxoon ma def ko waaye du leneen. comme ñu ma am copain mu doxaan keneen ma bàyyi te man ah ma mer bàyyi. déception ci nit. bien sûr. xam mm. uh-huh. naka nu mu sa copain la sa copine non sama copine. Mm. demee. <laughs> non xam nga des fois nga ànd nit nga am si moom yaakaar mu def la loo xam ne nii tey ji nii mooy loolu noonu daal. mu def la comme lan da fii moom non limite la quoi amul kii lan la la def exactement nu mu ko defee parce que loolu touché na la ba ma la laajee directement moo nekk sax. j'aimerais que ni noonu rek. est que mos ngaa dund déception. bien sûr dund naa nu mu demee. métti woon trop ci man mais ça va li Euh, moom nu mu demee déception bi nu te ku la ko def góor la wala jigéen. waaw góor la euh, nu mu demee woon ma nga am déception. non bëgguma cee ñëwaat parce que c'est mon passé. waaw bëgg nga may ci. non non. <laughs> la amuñu amuñu. waaw d'accord mais bëgguma cee dundaat moo tax. non peut-être am na keneen ku ma ko tamit daf may rappeler ay affaire yoo xamante ne mooy loolu je préfère ma taire. donc lan moo tax nit ñi mënatuñu garder seen euh, seen kaddu.

est que nit aussi dina dox te du wóolu kenn. non parce que li ngay dund moo tax li ñu lay wan au début looloo tax après finalement doo mujjee wóolu kenn. ah sa sa copain daa doxaan sa copine. non même